وأرسل محمدا بالحق وعلمه سبحانه ما أعلى مكانه وأعظمه وما أكثر جوده وأكرمه وأعز سلطانه وأقدمه موتاخ يونس لو كانت الفاتحة في التوراة ما تهود قوم قوم موسى ولو كانت في الإنجيل ما تنصر قوم عيسى mu ne faatiha bu amoon ci nitu yonent yàlla Muusaa yi ci tawreetam ba dana musle dana mosle tax li muy rëy ñaar rek lañ fi soxla mos ak mucci loo mucci mucci boo mosut amul njariñ loo mos mos boo muccut amul njariñ kon li mën a musle mën a mosle lenn la mooy istixfaar yàlla nañu ko yàlla defal li lay xamal ne dana mosle dana musle benn bu ci ne aaya alquran la dana musle alquran a wax ne wa maa kaana allahu muazibahum wa hum na yàlla nee na duma leen mbugal mukk fee yéen a ngi sax gi def istixfaar istixfaar feeg yéen a ngi ci duma leen mbugal mukk moo tax ma ne mbindeef yépp war nañoo sant jullit ñi ñu def istixfaar ndax bu taxutoon na jullit ñi sax giñ sax ci istixfaar li fi nekk ci ay bàkkaar ba boo xoolee gis doo mën a ñàkk xool boo dégloo dégg doo mën a ñàkk déglu boo làmbee daj doo mën a téye sa loxo boo doxee xuus ki doo mën a toog boo ne waxuma doxuma ñu fekk la fa sotti la bàkkaar ba nga gën a tooy ki doon wax ak a xool ak a déglu kon su boobaa bu ñu yàlla mbugalut ba léegi nañ ko nañ ko sante jullit ñi def istixfaar waaye jullit ñi tamit ñëpp war nañ ko sante tiijaan yi ndax kat boo jëloon micro trottoir di laaj istixfaar ne ko waaw istixfaar ku man ci yow dana wax ne tijaan yee man ci man wallahi istixfaar tijaan yee ci man ñëpp kon dana musle moo tax alquran wa ma kaana allahu muazibahum fekk wahum yastaxfiruuna ñaar la woon benn bi dafa ne wa maa kaana laahu li yuazibahum wa anta fihim yow yonentu bi feeg yaa ngi seen biir lu caay-caay gi bëri bëri mbon gi duma leen mbugal yonentu bi ba aaya ji wàccee mu ne fa ida madaytu taraktu fihim l istixfar su ma demee nag ma bàyyi leen istixfar kon yonentu bi dem na ci saahir benn ngànnaay lañ dese buñ ko bàyyee yàlla mbugal ñu mooy istixfar fuñ toll kon nañu sax ci istixfar waaye ñaareel ba dana mosle kay li ci gën a bëgg mooy nga fexe ba am alal ci mos la bokk fexe ba am doom yu góor ak yi jigen ci mos la bokk am say tol ci ci mos la bokk am ndox sa yo ko soxla ndax moog yaa yaa moom mënu leen a teqali ko ci mos la bokk lol lépp yàlla tënk ko ci ben ay ci suratu nuh ne istaghfiru rabbakum innahu kaana ghafaran as-samaa'a alaykum midraran wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharan yi ko ko yàlla jox mos nga mo waral ñent wala ñett dañoo mësa a feebar ñëw ci yonantu bi kenn ku da nga am problème sa problème bi la dal bokkut ak sa problème morom sa problème li morom ki ñëw ne ko man bi sama problème lenn la bay rek la yaakaar ruuj ujna jiw jina naa waaye tool ngay yàqu ndox taw amut yonantu bi ne ko demal sax ci istighfar keneen ki ñëw ne ko yonantu bi am naa soxna am naa ay soxna ba léegi gisaguma sama taaw amaguma doom te yag na ki néegab sey te dom la bëgg and ak alal jumalendundale len dundale dundalee bi ne ko demal nga sax ci istighfar kenen ki ñew ne ko amna jiwu ndox amna waye sama problem moy tol la amut fuma koy def yonent bi ne ko demal nga sax ci istighfar ñom ñoo ñëpp bañ ko saxé bañi gisat bi ki bëggoon dom am dom ak alal ki bëggoon tol am ko ki amon tol timit am taw yalla tan ko ne istaghfiru rabbakum innahu kana ghafaran yursili sama alaykum midraran borom taw baa ويجعل لكم جنات maanaam ki ki bëggoon ndox a ngi noog kon yursili sama borom ndox maa ngoog wa yumditkum bi amwaalin wa banin ki bëggoon doom ak ki alal a ngi noonu wa yaj'al lakum jannatin ki bëggoon ay tool tamit mi ngi noonu kon istixfaar mooy lépp yonent toog boppam dafa wax te ba muy wax sax dafa gëñ yonentu lu mu wax dëgg la waxuma la lu mu gëñ dafa gëñ ne walladi nafsi bi yadihi law lam tusnibu wa tastaghfiru la dhahaba allahu bikum wala jaa bi qawmin yuznibuna yuznibuna wa yastaghfiruna fa yaghfiru lahum bukhari yu yonentu bi neena watna ki yore sama bakkan ne su ngeen fi nekkutoon di moy yalla di ko dana len fi jele andi fi ñukoy moy di jegalu kon li ci dege yalla bañ ko tilim xam nga kim bañ ki sanguut yalla lim bañ moy ki sanguut comme legi tilim ta ñak nañuy sangu tijani yi nag ñoo man ñepp ci sangu xam nga tijaan limuy sangu par bis kii wasifa ben yon rek di wirdo ben yoon di wirdo subaak ngon ñaar fukki yon lay sangu ak ak fanwer ñaar fukki yon ak fanwer ñaar maanaam ñaar témer yon ak fanwer waye dama ne kuy sangu ñaar témer yon ak ndax da nga tilim yow yaangi xey sangu astaghfirullah astaghfirullah témer yon ngon jon nga ne at astaghfirullah astaghfirullah sanguwaat téeméer yoon ngi lal ma laa nam wasifa mi nga ne astaghfirullah azim lasi laa ilaha illa fanwer yon su fekke ñaar yon nga wasifa yaangi sangu par bis ñaar témer yon ak juroom ben fuk waaye xam nga ne kon set nga soo ko calculer at mi nag tijaan bu ne xam nga li muy sangu par at tijaan bu ne mi ngi sangu par at juróom-ñeent fukki yoon ak ñeenti junne ak bi eh, ak juróom téeméer jàpp ko ci ay way yastaxfirul muridu biltisaami tisina alfan waxadan fil aami mooy lim bi juróom-ñeent fukki junne yoon ak ñeenti junne ak juróom-ñeenti téeméer tijaan bu ne manam dana dana koy verser ci compte banque am ci istighfar par at ma ne nag ki gën a soxor ci nit ñi añaan du jullit bu heboo sax bu mu xam yàlla soo ko lu gaañ nga métti métti nga taxaw ne ko baal ma bala am fukkee mun la baal la demal waxuma la nag yàlla mi nga ne innahu huwal barru rahim kon lu tooñ rëy rëy boo saxee istighfar istighfar ñaar téeméeri yoon ak fanweer ñaar téeméeri xam nga ne yàlla jéggal na la kon lii alxuraan wax na ko bi ci tegu